ndey la ci Adji saar parce que dafa taxawaay ci moom taxawaayu ndey maanaam daal koo xam ne dëkkal ko nekk ak moom ci këram di ko defal lépp di xotti di jox yére bagage yu jigéen nga jox ko lépp nga jox ko ba tey jii nag nee def na pos nee na ngal la aji bu procès amee bul ñu rusloo bis boo ko defee di nga gàccaal mbooleem jigéenu Sénégal yi lay jàppale bi nga yëgee postam boobu ñu ni def na ko ban jàngal nga ci def. ah ba ma yëgee ne moom moom moo moo ki muy jàppale ñoo yem rek. man booba hmm? laa pare woon ci ay mbiram ndax dafa am fu ma ko tegoon daal lool. Hmm. mais bu ma yëgee ni moom ki muy jàppale ñoo yam li ñuy def ki ñuy jàppale moom lañ koy def wala moom lañ koy bëgg a def. wala moom moo ko expliqué boppam kenn susalu ko ko. Hmm. boobu la ma ay mbiram doyoon waar lool waaye daal Adji Sarr naam ful ku daw génne na daw génn bu ko fi kenn bàyyi. kan Adji <laughs> de. caaxaan ma ne na am ful ku daw génn na daw génn. aji est noonu la na war a dawee. bañ a daw. non non aji dañ ko épinglé. épinglé fan ñëpp la ñu épinglé ku si daw génn na. daw Gabriel Kane am na ay yitteem. su ko neexee am na saaru saraxe la te bu mu nangu ñu koy. ban saraxe. ku ñëw di la mbër mu. mais Gabriel après coow la dugg ci xeexu aji après coow li ñëw encouragé la. xoolal di di la jay di la bëmax di la jay di la bëmax entraîné lekk di la jay di la bëmax booy dem mu lëngoog yow waaxul defal nii bañ dem ba nga xamante ni nee nañ dañuy dem fee mu bëgg a daw génn naan bu ñu rusloo da nga naan ko kaay duñ leen rusloo la war a na wax. Mhm. bi mu génnee daa war a wax yéen ñun duñ leen rusloo. Mhm. amee nañ ko nangam nangam mais ni mu waxee nii yoonam nekku si. non non monsieur Arnaud Assane non yow yàgg Assane doo dëgg saa ba kii ba yàgg mu ne Diop bul ñu rusloo de. bu ñu rusloo ko dégg. non non non xam Assane ma rusloo loolu yàgg ko dégg non non non kii ni mu waxee ni warut a wax du duñ lu mu war a wax. dawal duñ leen rusloo ñoom ñaar la moom moo jiiñe wala ajee jiiñe ñoom ñoom ñoo ñu jiiñ ñoom ñoo pajiñee ci lañ képp ku bokk si xeex bi da ngay taxaw ni duñ leen rusloo waaye bu ñu demee ba fii ñu bëgg jël lépp yan ko kaw aji naan ko aji bu ñu rusloo ñun ñoo wax a wax aji buñ ñu rusloo waaye ñoom waruñoo wax aji buñ ñu rusloo d'accord te lu fu lu ñu teg aji ñoom ñi dañ leen faa war a teg ah non ñoom jiiñe wuñ de daan bu ñu teg aji dañ leen ko war a ñoom jiiñe wuñ ab ikiri lañ ikiri xam nga ikiri ikiri ikiri tête de file beeg yëpp day am ikiri ñoom ab écurie lañ am nañ carte. kan mooy bi ah. kuy entraîneur ñoom ñëpp ñu ngi si biir. ab écurie lañ bi. entraîneur bi mu ñi ko wax. d' accord euh, jërëjëf sëñ Xaadim Gueye. Euh, d' accord maa ngi gis euh, gars yi ñu ngi signalé d' accord xam naa ne ku tudd sëriñ Xaadim Gueye mooy saaga. voilà njiitu réew mi kenn du ko saaga président Macky Sall ay carte moo ko fi jëlee. mais saaga baaxul nañ àndandoo rek idée yi su bokkul nag su Assane waxul euh, loo àndul wala saa wala man wala d'accord ci njiitu réew mi commentaire leneen mais daal suñu sañoon kenn du saaga njiitu réew mi institution la benn beneen bi mooy woy juróom deful kenn dara wax dëgg yàlla kon nag sëñ Xaadim Gueye euh, ku baax lañ la tuddee bul saagaati waaw mu sedd bàyyi noonu mu sedd alaaj bi nga yëgee postu euh, aji sa kii bi Gabriel yow jàngat bi nga ci am wala aji daa a daw génn non pas daw génn c'est nga Gabriel Euh, wax ji muy wax waxu kuy soog a ñëw di jàppale nit la kuy soog a ñëw di jàppale ah, nit euh, waaw c'est man li ma jaaxal nag mooy hmm. atu yàlla hmm. mi ngi jàppale aji saar lu tax lu ko fa téye woon boobu bënn hmm. xanaa du ay waxi kese waaw dama jàpp ni atu yàlla boo nekkee nit ki di ko jàppale ci benn combat plateau bu nekk nga dem toog fa. Hmm. am na lu mu la lu jar jàppale lu wér. Hmm. loo xamante ni bii kat boo ko yóbboo. d'accord euh, mbir yi ñi xamut danañ xam. Hmm. li nga xam te bu ñu xamee li nga xam. baatu duñ ñu rusloo du fa am. baatu duñ ñu rusloo nag dafa. firi lu bari. mais moom du avocat. waaw dafa firi ñëwoon aji di yor ay ah, avocat leen ko kon juge moo leen war a yooyu non parce que wan na ko ko parce que le fait mu topp ci dafa sës ci mbir mi rek. Mhm. yaa ngi dégg. waaw jël ko def ko kombaam boppam. Mhm. moom am na loo xam ni warut a jóge ci moom parce que lii mu wax nii rek. Mhm. dafa ñoo wanaat ne ndaw si amul benn preuve. li mu wax. ay waxi caaxaan la mu mel ni nag moom dafa bëgg a tëb ci gaal gi wàcc te gaal googu mu ngi woon ci biir lii mu def ni li Assane wax ni ne saraxe loolu la kan parce que moom fi mu toll nii sax fi mu ko waxee nii sax dafa garaaw parce que fi waxee ni mooy euh, maanaam yëf yi mi ngi dem bay bëgg a jeex. xam nga ni bu jeexee léegi yow liñ leen tuumaaloon ne moom ngeen di encaissé. Hmm. dootul ñëwati. Ah. léegi nag nga ne moo kon nag comme que affaire yi jeex na daal. Hmm. man daal naa wàcc. jeex hmm. da ngaa fin de la ñu ne. Ah. parce que bu nekkee dañuy wax procès kañ. waaw bu dee rek dañoo dem ca procès ba. waaw procès ba mooy jóge fin de. jóge nag lu tax mu wan léegi nag lu tax mu wan Sénégalais yëpp ne leen non ñoom dañ jàpp ni foofu mooy jóge lu tax mu wan Sénégalais yëpp ne amuñu preuve li leen nit ñi doon wax yëpp ne amu leen preuve. war na ko ci live nee na. samay preuve samay avocat ñoo ko yore. te Gabriel Kane bokku ci avocat mën ngaa nekk ak yow mën ngaa nekk ak alaaji mi subaa ngoon guddeeg bëccëg alaaji mi di la kaasal atum yàlla. Hmm. te lim lay kaasal xamu si dara. Hmm? war naa mën a nekkat. avocat yi preuve lañ yor mën ta nekkat. Hmm? non ko. avocat yi dem nañ aji leen samay preuve. avocat bu dee joxe avocat la ñooy preuve yi lañuy laaj. preuve yi yi sax damay ragal ñoom ñu def poste daal di wax lii. bu fekkee amuy preuve yow doo nga yaay dem <laughs> projet damay ragal avocat yi daal de ko. mais naam fulla rek ku daw génn moom it na daw génn rek euh, fi mu toll nii. fi mu toll nii tey fi euh, xam nga ñoom dafa am lu ñu doon wax naan di mais jàpp naa ni. Euh, doon naa ko dégg ñuy wax naan ñoom ñii ñoo bëggut procès. Mm-hmm. xam nga affaire bi dañ koo tuxaloon mu mel ni Ousmane Sonko bëggul procès. Mm-hmm. ci ñoom niñ daan waxee. Mm-hmm. mais ndekete. ñii ñoo musul bëgg procès am. xam nga ñoo doon wax naan jàkkaarloo jàkkaarloo bu ñu jàkkaarloo wee preuve yi kii. Mm-hmm. waaw damay def justice damay def lii comprendre nga. Mm-hmm. jàkkaarloo jàkkaarloo ba ñu xëy na lay jàkkaarloo. Mm-hmm. ñu ne woon fa la ñuy génne preuve bu ñu jàkkaarloo woon ci juge bi ba ma wan ko ba ñu wane lii. Eh, eh, bu boobaa kërëb kërëb ñu jàkkaarloo ci juge bi amuñu preuve amuñu dara lu ñu wane. te Adji Sarr non seulement amul dara lu mu wane mais amul kenn ku jege mbir mi koo xam ni ànd li mu wax. c'est bu amoon sax kenn koo xam ne ànd naag moom sax ñu ne diw kat ànd naag moom. pourtant magam ji déglu nga audio yi mu yónnee Cheikh Baara wa sew sew wax ci biir. li hmm. asanaan sew sew. ñëpp dañoo war a noppi ndax affaire yi kenn xamagul ku am dëgg. Hmm. non ñoom kay war nañoo xam ku am dëgg. bu dee dañ kenn xamul. non avant avant audio yi génn la. avant audio yi waaw mooy audio yi mu envoyé woon Cheikh Baara. waaw waaw boobu la audio yi mu envoyé ko ah, loolu la ko wax. waaw déggoo ma naan kon ba léegi ñoom Famara sax ñi ngi dutee di xam ndax seen rakk ji ci lim nekk lan la. waaw hmm. xam nga loolu yeneen mbir la donc man jàpp naa ni pareen saa xam nga sa rak kii dugg ci mbir moo xamante ne bi xaalis a ngi ciy génn ak yooyu. Mhm. Euh, léeg-léeg moo nga ne ma amul problème naa nooru ci mbir mi rek daal di lekkaale sama wërsëg. Mhm. fi mu toll nii lekkukaay wërsëg xam naa nag affaire bay bëgg a tëj. Mhm. waaw fi toll nii nag comme que affaire baa ngi bëgg a tëj nag gars yi bëgg a tëb nag am na ñoo xam ne dañuy a ñoo xam ne sës dina ñaboo des na. quelque kii waaw am na ñoo ñu ngi soog a nuuru. comprendre maanaam li ma la wax keroog am na ñoo xam ñu ngi ci ñiitaatu ndab li mm. jógagum naan daxal law gi yii duñ ko bàyyi nii mm. faaw ñu daa dee ñiitaat mbax dafa saf waa léegi man man damaa bokk ci senegal yi gëm ni dossier bi day doo a commencé à laaj mm. ah yow li fi jaar lépp waaw dossier bi kañ moom ñoom lu am na ñoo xam man moo dégg ñu ci dossier bi ñaari at dossier bi daa commencé gun waaw yow ñu naan ay nit ñoo ñoo sant lii Adji Sarr non mais day jóge ci day jóge ci cadre viol dem ci complot dem ci parce que lii dee ci ay bakkan du mu rëtt demee noonu waaw léegi feneen foofu mu jëm nag am na ñoo xam dañuy bañ ku leen ci raaxaale. dégg nga Mamour démb moo tax dañoo bëgg a yemale seen mbir. ci cadre viol bii la ñu nekkoon ñun. Mamour sax def na vidéo seetaan nga ko. Mamour Diallo wala seetaan ah, mooy kii bi mu ah, kii bi mu kii nee na moom maase wut demul fa ñuy maas loo yaxlewu xam nga loolu moom loolu moom loolu moom wax ku daanu ci sareet la xam nga ay mm. maase xam nga yooyu mooy ñàkk am loo tontu yow bu fekkente ne bi mbir mi boo demul fa ñuy maase looy wut ca kay maas ka daan maase waaw ba mu la cee tudd ba mu la cee tudd moom koy loolooy wax ba nga dem fa mu lay enregistré dem ca ka nga dem ca ka daan maase ba ñu lay enregistré non maase ji wut la wax waaye dafa dem ca ka daan maase lu mu fay wut parce na gars yi extrait xaw ma ndax kii nga ko mooy fi naan fi ko ndaw si ne waaw leen clim wala vente loo mu ne ko non bul ci benn man sax damay fay sama téléphone waaw xam nga yooyu te loolu lépp ndaw see ko enregistré fay téléphone ndaw see mu ne xaaral ma fay suñ bi doy na war de ñaambeng nee na laa tasubu dëhra fa inna dëhra huwa Allah wax na dëgg de yonent bi alayhi wax ñaan si dossier bi daal nee na nee nee na bu leen ŋàññi jamono ndax jamono mooy yàlla hmm. wax na dëgg kon ba suba ak jàmm incha ah. allah ci kàttanu borom bi waaw jeex na ah, yow sa montre amul heure affaire bi daa gaaw si man montre bi dem heure Chine la yor